xam nga ren jii euh, li nga xam ne ñiy xayma taw bi nga xam ne moom la war a ñëw wax mooy nawet bu bu am taw bu bëree baree bëri moom la ñuy am euh, looloo tax euh, pour waajal ko gouvernement bi jël ay matukaay yu bari fii ci Touba ak feneen ci Sénégal tey ñu ñëwoon fii ci nemmeeku bi ñuy def ci bërëb yi nga xam ne gis nañ ne mbirum mbënd dafay tar nemmeeku tamit liggéey bi nga xam ne gouvernement bi sant na ko service yi pour ñu def ko ñu ànd ci ak autorité administrative yi gouverneur préfet sous-préfet ak autorité territoriale yi aussi maire commune Touba mi ngi nii ci suñu wet ah, li nga xam ne nag euh, moom moo fi amoon daaw mooy euh, euh, mbënd mi taroon na fi ci yenn quartier yi ba président ci biir plan Orsec mu jël benn programme mu 4 milliards ñu def ko daaw ci lu jàmp euh, ba pare mu ne woon nag am na beneen programme mu ñaar fukki milliards ak ñett yoo xam ni dana ko def ren ji programme ñaar fukki milliards yooyu ak ñett ni mu ko waxee woon noonu la ko defee parce que tànn nañu entreprise bi koy def waaye diir bi nga xam ne ak li code des marchés bi laaj pour tànn entreprise bi moo tax biñ ko tànnee ak léegi euh, liggéey bi war toll ci fukki weer ak juróom-ñett pour def ko mënul a pare pour nawet bi ñu ne ko kon na jël ay ay pexe néganiku pour ñu jàll nawet bi léegi loolu muy Kër Ñang nga xam ne presque ndoxu Touba yëpp foofu lañ koy yóbbu mu liñ fa mënoon a nekk pompe yi mën a manque ñaari millions yi litre ak juróom-ñetti téeméeri junni par waxtu ñu yokk ci yeneen ñaari millions donc pompe yooyu léegi mën a manque ñeenti million ak juróom-ñetti téeméeri junni ci ay litres par minute te ndox moomu suñ ko pompé ci bassin yi lañ koy indi mooy bassin bii ñu nekk nii Darou Rahman mu nekkoon benn bassin léegi ñu yokk ci beneen ñaareelu bassin fii aussi gisoon nañ ne que ndox mi su ëppaan su génnee rek dafay yàq fii tali bi loolu tamit gis ngeen ci bunt bi ay weñ yooyu ñu fi def pour que ndox mi su su jàllee su du mën a yegg ci tali bi su ñëwee rek day dugg ci weñ yooyu après ñu def benn tuyau pour yóbbu ko ci ginnaaw tali bi ah, gis nañu tamit ne Ngélémou amoon na jafe-jafe foofu aussi liñ fa doon manque daaw ñeenti téeméeri junni litre la woon par waxtu yokk nañ ko léegi ba mu nekk million litre par waxtu ah yeneen yi partie yi tamit danañ fa def ay machine u euh, euh, sapeur pompier pour manque ko parce que aussi sapeur pompier président daf leen a jox benn programme spécial jox leen ay moto pompe ak ay électropompe ren jii lu mat téeméer ak ñaar fukk ak juróomi moto pompe ak jënd nañ ko jox ko sapeur pompier ak armée bi euh, bokkul nag ak euh, euh, fukk ak ñaar yi nga xam ne grande capacité la yoo xam ne yi aussi jënd na ko beneen mbir bi ñu gisoon fii ci Touba te mu nekkoon yitte kilifa yi torop mooy ndox mi nga xam ne daf doon jóge ci suuf di yéeg ci fi nga xam ne moo waroon sëg yi ak yi nekk foofu léegi bi ñu fi yónnee ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci loolu ñu ne li ñu war a def mooy def ay forage yoo xam ne suñ ko manqué ndox mi dana wàcc te loolu gis nañu fukk ak juróom-ñeent lañ ci war a def defagum nañ ci fukk ak benn wala fukk ak ñaar ci yooyu juróom-benn commencé na cee dox bi njëkk a dox fukki fan ak benn ci mois de juin bii la maanaam ñaari ay bés ci ginnaaw la commencé do te ñun ñëpp mën nañ koo seede parce que yéen a bi ko ñi fa dëkk di wax ak autorité administrative yi bi ñu commencé pomper loolu lu néew moo commencé pomper juróom-benn forage rek bi njëkk a fukki fan ak ñeent la ci ginnaaw waaye ñoom seede nañ ne ndox mi commencé naa wàcc notamment ci sëg yi ndox mi commencé naa wàcc donc boog am na ñu yaakaar ne saafara boobu nga xam ne ñi seen xam-xam màcc ci loolu moom la ñu indi saafara boobu dana mën a régler problème bi li ma mën a wax mooy yéene bi mi ngi fi pas-pas bi mi fi taxawaay bi mi ngi fi yitte bi mi ngi fi ñu ngi ciy liggéey gis nañu suñu tegtaan ni ñu ngi ciy liggéey waaye nag ah, yàlla moom moom moo yore tawam moo yore ngelawam moo yore euh, le feu euh, euh, su ko dañu ko indi ci diir boo xam ne bii xëy na doom aadama du ko attan waaye daal li ñu war a def ñun def nañ ko